personnes yoo xam ne démb tamit atte nañu leen bàyyi nañu leen ñu ñibbi kër ay yéen a kaay gi ne na tribunal ni ki démb xumboon na lool maanaam defante bi mel ni male yéen a gi ne ñi nga xam ne nag ñoom ñu tegoon loxo démb am na seeni natango yu nekk ci coalition Yewwi Askan Wi ñoo xam ne ñëwoon nañ nag ngir taxawu leen Ousmane Sonko ma nga woon tribunal Khalifa Ababacar Sall ma nga woon tribunal Habib Sy ma nga woon tribunal Maimouna Bousso ma nga woon tribunal Moussa ma nga woon tribunal la Mbodj ma nga woon tribunal Cheikh Tidiane Dieye ma nga woon a ne na ni ki démb tribunalum Dakar salle 4 lañ leen doon atte maanaam bi fukki waxtu jotee ba tegal fukki simili la ñuy commencé mbir mi maanaam jokkalante kàddu yi diggante avocat yi ak procureur mel ni tulleeg male yéen kaay gii di la sa xëy diñu xibaar naan ñu Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye ni ki démb atte nañu ko waaye nag benn weeru kaso la wax ne moom lañ koy tëj boo xam ne du ko tëdd nee na dina def appel ndax tëj gi nga xam ne def nañ ko ko benn weeru kaso loolee jaarul ci yoon a kaay gii di la Soleil nee na bu benn weer lañ ko tëj waaye nag du ko tëdd six mois sur Quotidien <laughs> le vrai journal nee na tout ça pour ça maanaam liñ fi doon wax di ŋawtu ŋawtee lépp nekk fii lay mujjee yéen kaay gi nee na bu passé Déthié Fall ak Ahmed Aïdara ñi nga ne sursu lañ leen tëj ñi si des ñëpp bàyyi nañ leen ñibbi maanaam toppee wu ñu leen dara seen ginnaaw bandang journal bi di bés nag tey la tey sa diwaanu Sigi Coora ndax gi Mari Sagna moom tim ak ñi nga xam ñoom lañ ko tegandoo leen loxo tey jii la ñu di atte yéen kaay di Sud Quotidien nee na atte bi ñu gis démb daal apaisement am na ci ate bi yéene kaay gi di wal fajri nee na neexul ba neexul waaye nag Macky Sall ci boppam moom mooy créer ay adversaire Macky Sall ci boppam mooy créer ay adversaire ndax ñii nga xam ne Macky Sall ma ngi leen di jàpp di leen di dugal ci kasu bi loolee ci boppam day tax Macky Sall ay adversaire am gën a bëri ci réew mi yéene gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Déthié Fall moom nag démb wax na attekat yi du mel ni midi nee na leen defuma dara dañ ma enlevé te nag gendarme bi nga xam ne moo ma teg loxo bi ko wax ndax damaa wax ne ma wa man daal damaa jot ay ordre ndigal laa jot pour teg la loxo yow Déthié Fall maam jaara faam ci source a démb wax ne attekat bu lu mel ni mi dee nee na ko soo ma libéré soo ma bàyyee timita li may njëkk a def mooy dem sa Barthélémy Dias ndax nag loolee loi bi moo ma ko may man maam jaara faama ba tey ci biir yéen kaay gi nee na moom da dox daal di circuler ànd ak ñaari doomam dem seeti Barthélémy Dias te nee na loolee ayul dara nekku ci nee na sax gendarme yi nga xam ne moom la njëkk a jot ñooñee dañu ko ubbil bi bàyyi ko mu jàlla bi mu demee nag ba buntu kër Barthélémy Dias di leen wax ci kaw terrasse bi ubbil leen ma buntu bi fa la ñu ko fekk daal di koy jàpp ci anam boo xam ne jaarul yoona moom maam jaara faam ba tey ci biir yéen a kaay gi ñu xëy nag fekk fa maître Ousseynou Fall maître Ousseynou Fall mi nga xam ne nag moo doon layal ñoom Déthié Fall maanaam ñi teg loxo nee na nag bu ñu nekkee ci nguur goo xam ne dafa ragal ba maara day taale waaye tamit bu ñu nekkee ci nguurug wëyu nguurug wëyu goo xam ne président ba ab wëyu la maanaam nag di piétiner li nga xam ne mooy liberté yi maanaam di nappaaje liberté yi ba pare nag di saaga liberté yi maanaam mbir mi nii rek la mën a demee ba tey moom maître Ousseynou Fall nee na am na attekat yoo xam ne dañoo courageux ay jàmbaar lañu waaye nag am na ay attekat yoo xamante nii la yàlla xam doy na attekat yoo xam ne daal villa yu rafet kër yu rafet rek moo leen tax a jóg te loolee dafa war a jeex ci réew mi yéen a gii di Vox Populi ñu koy fekk fa coalition ànd sàmm jikko yi ñoom nag jamono ji njort nañu ne kaaw mën naa am Sénégal suba suba suba lool nag moo tax ñi xam ne coalition sàmm jikko ye ñoom nag ñoo ngi sàkku ci coalition yeewi askan wi ngir ñu bañ a amal seen rassemblement bi Moustapha Guirassy ci yéen kaay gii di Vox Populi moom nag ma ngi woote ak dal esprit de dépassement waaye ma ngi woote apaisement moom Moustapha Guirassy nee na nag njiitu réew mi di président Macky Sall moo war a soppi ni muy waxee waaye tamit war naa soppi ni muy doxalee te nag situation bi maanaam garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne Macky Sall daf koo war a natt maanaam gravité situation bi la Macky Sall war a natt yéen la témoin mu xëy di ñu xibaar naan ñi accident am na ci waaxu Gambie yi maanaam benn bateau chinois moo mbëkk ak gaal gaal goo xam ne ay doomu réew Sénégal ñoo ci nekkoon am na ñett ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan waaye nag li garaaw ci mbir mi mooy bateau chinois bi bi mu e gaal gi ba pare dafa bëggoon na daw yéen kaay gi di alerte xëy di ñu xibaar naan ñu sommet g bi nga xam ne jamono ji ma ngi am ca diwaanu Allemagne njiitu réew mi di président Macky Sall dafa bëgg nag Afrique am ab toogu ci G20 yéen kaay gi de la union africaine jamono ji kay jot nañu seen ticket ngir nag dugg ci G20 yéen a kaay gii de l'info njiitu réew mi di Macky Sall nee na ñi nga xam ne ay migrants africains la te nag faatu ci Maroc loole nag ñaawlu na ko bu baax a baax yéen a kaay gii de la témoin nee na Maroc mii nga xamante ni moom la ñuy wax ne sunu xarit la Maroc moomee daal mooy rey ay doomu réewum Afrique ngir nag lu neex ñi nga xam ne ñooy waa Espagne waa nag lii li nga xam ne moom lay tekkee mooy lajjite bi nga xam ne nag chef d'état africain yi lajj nañ ko yéen a kaay gii di